daal leen jàmm ci seen tënkub xibaar yi ñu doore ko accident bu métti bi am ci yoonu Kaolack jàpp Kër Madiabel lu tolloo ko juróomi nit ñoo ci ñàkk seen bakken ci bile accident nag benn yaay ak doomam bu am juróomi weex ñoo ci ñàkk seen bakken ak ñeneen ñu am ay gaañu gaañu accident bi nag mu ngi am ci gaawoo ci guddi gi benn ndaamaar moo daal di mbëkk beneen oto ba tax juróomi nit daal ci ñàkk seen bakken bennub jàngoro la ñu daal di seetlu gox boobee ca Kayar bokk ca Thiès foofu nag jàngoro bu doy waax lañ fa daal di nemmeeku lu ëpp juróom fukki nit boobalee jàngoro dal na leen mu doon lu bees ci bëtu way docteur yi jàngoro jooje ni muy wanee boppam ay wàccu la lay dikkee ak biir buy daw tax ba waa kër docteur daal di jokkoo fas ne def ay analyse ngir mën a xool jàngoro bi lan mooy sabab li gannaaw ba kii di booy Djiné daal di rëccee foofee ca camp pénal buñ toll nag sax nag rëccam boobee kii fa nekkoon njiit mucc ca ndax moomee ca noonee lañ ko daal di dàkkaay yeneen pénitentiaire ya doon garde ñoom itam dañ leen a dàq dàqam ndëkkandiku ñoom itam dañu leen a sant ñu toog seen kër ba keroog yëf yi di leer waaye si diggante bi nag jot nañ amaat beneen inspecteur bu ñu fa tegaat mu ngi wuyoo ci turu Omar Diop al foofe ci camp way takk der yi aar géej gi ak jaww ji ñoo boole seenu doole ba mën a teg loxo ñi nga xamante ne ay def koti ñombe lañ tey sax nag indi ak copie célèbre ci mim xew moo leen taxoon naa jokk ndax ñu ngi leen tegee loxo fii ci Dakar gannaaw ba way takk deru doomu xew mi duggee ci biir bato bi di saytu ana lan moo ca ne ci lañ gisee ne ñoom ñooñee kenn du ca sénégalais ñeent ñi indi lañ bàyyeekoo benn Mauritanie beneen bi ci des Libye ñoom ñooñee ñoo nekkoon ci biir bato bi fas yéene woon dugal drogue bu takku fii ci mim réew kii di Bougainville moom nag jóg na songu kii di Aliou Sall nekkoon fi député doon gàddu kàddu askan wi kii di yi nag gannaaw ba ko yoon mayee liberté provisoire ci coowal billet yi fi amoon te loxoom génn si woon moom yi nag moo ñëw sampaat na dem ci jongante yi ñuy dem foofee ca Géejawaay ba nuppi nag nee na pare na pour jàppale kii di Lat Diop ndax mu mën a gañe meeru bu Golf Sud Bamba Fall ca wet ba moom tamit muy fësal ne fas yéene naa samp nëndam jëm ci wàllum kujjëb politique te du ci déglu kenn moom mi di fësal ne am na yéene liggéey Médina bu baax waaye dañ koy tegal ay ndëkk sërëx ndax li mu ferteewul ci nguur dem si bay leeral ne fi mu toll ni noppi naa nekk ci kujje fekk si kii di Ousmane sonk ak Khalifa Sall ngir ñu gën a mën a am doole pour jàkkaarloog nguur gi bu ñuy dem ci jongante yi nag ñun ñëpp ñooy àndandoo dem te képp kuy dem di nga demee ci turu benn Bokk Yaakaar yooyu les kàddu nag njiitu réew mii di Macky Sall moo ko daal di yëkkati di ko xamal noonu la Mary Teuw Niane nekkoon njiit ci wàllum njàng meeg njàngale bi ci daara ju kawe ji Mary Teuw nag ne fas yéene naa samp nandam ci jongante ya ñuy dem te gisut lan moo ko koy teree def waaye nag élection locale yi Mary Teuw di fësal ni askan wi la ak kañu tànn pour mu toogal leen ci seenub gox Mansour Faye jóg di xamle ni amul benn maire bu mën a liggéey liggéey ba ca war fekk njiitu réew mi àndu Mansour Faye di xamle nag bésub tànn candidat bu jotee moom njiitu réew mi dina tànn ku ko doy def ko mu nekk candidat ci gox boobee ci Saint-Louis ñu jàll ci xibaaru biti réew ñu dooree ko Mali gannaaw ba kii di woy takk der bi ñu xam ko ci colonel Assimi Koïta daal di nangoo nguur gi ñaari yoon diggante bu ndaw moom mi de nag tey fas yéene naa jàkkaarloog askanu Mali fas yéene waat dina tey dëkk ba ca na mu waree. di njiitu Boko Haram ñu gën ko xam ci abu Aboubacar Cheikhou moom nag dafa daal di wàcc liggéey moom nag mu ngi ñàkkee bakkanam ci benn jàkkaarloo ci fukk ak juróom fan ci weeru mai mbokk yi ñuy dellu di leen jaajëfal ci safoo bi ngeen di safoo di suivre suñu ay programme ci Ken Bëggul TV duñ def leen lu jox leen dig daje ak seen rubrique bi ñuy woowee sàkk pexe